ana ñu bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota rav Chevrolet ak yeneen ak yeneen. oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di plus 1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mën mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yi la oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la nekkee nga commandé sa soxna. actu du jour lu ci gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama ñoo dolleeku ci lim ko fi jot am lu toll ak juróom-ñeent fukk ak juróom faj nañ leen tey ba ñu wër am na ñaar yu si ñàkkaat seen bakkan Zeyda Mariama Niass doomu bay ñas bi dem na moom naka jëlee nañ ko Dakar gi mu génne àdduna yóbbu ko kaw Kaolack ca Medina Baye Niass niki tey la ñu koy jébbal boromam xalifu lew na Niassène bi mere na lool njiitu réew mi Macky Sall ndax lu préfet bi tere xew-xewu diine yi Ahmed Tidiane Niass dem na sax bay tëkku njiitu réew mi fas yéene ko sëf li nga xamante ni moo di xam-xamam ah, si rek bu ñu leen tere seen ziara bi at mi mbirum teenu gaz ba takk ba si ca gajaga ak rek ingénieur ba nga xamante ne ni da see jële woon lakk-lakk ba ñu ba mu mujjee ñàkk bakkanam si àddu gën leen a xamle rek ingénieur boobee di Michael langue politique bi dinañu si xuus àddu rek ci li nga xamante ne ni moo di mbirum kii di Déthié Fall moom nag daal dinay du mujj la ko Idrissa Seck Fall moom ci ab communiqué daal fësal am la mu ca xamle waaye it fësal ne war na gannaaw loolee Idrissa Seck daal di koy fal projet jëlee fi ville bu Dakar mi ngi wéy di jur ay réaction ba jamono ji may wax ak yéen bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Vox Populi Serigne Alioune Moussa Samb di imam ratib bu grande mosquée bu Dakar daal dina si addu fësal si rek fa mu a fare ndoy baan daal dina yëkkati soutenir Assane Diouf ngir ñu génnee ko ci kaso gi ndax lu mu tawat Ndoye Bane nag dal yu métti la dal Assane Diouf la mu ko xamal la ci kanam tuuti rek la ñu leen koy jottali alxayri daal dinay ba ci benn candidatu seen petit gàlle kookee kan la danañ leen ko xamal danañu wax tamit ci mbirum Ndella Madior Diouf moom moomee daal dinay yëkkatiwaat ay kàddu ca émission kakatar ca télévision Futur Média ba ñu ko dalaloon di dellu rek ca kàddu ya mu yëkkati woon nga xamante ne nii ba ñu ko déggee ñëpp jàpp gémmiñ si rek lu ñeel naka lay sëyee ak boroom këram laata rek muy xamle ni moom moomi du ab lesbienne kii di pend Penda Guissé kontaan lool la def ci anniversaire am bi moom nag kaddu bu mucc ayib la ñu ko jox ba tax rek mu jot fa tuur ay rongo ya Ouzin Keita ak liiru Diane lan moo nekk seen diggante ñoom ñooñee jàppante nañ ca Sen TV ba ñu leen dalaloon ñoom ñaar ñooñee nag lan moo leen a jotale démb ca Sen TV loolee yëpp danañ leen ko gën a yaatalal xibaaru tàggat yaram li mu ci gën a fës bu ngeen taaxirloo gannaaw bàkk bi ñu daal di yaatal. mu nga ko bàkk ba jib na ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal tey junne ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti doomi àddama la ñu testé téeméer ak fukk ak ñeent ñoo ci positif ñeent fukk ak juróom yi dañu leen wàll juróom-ñaar fukk ak ñeent yi di ay cas communautaire fukk ak juróom faj nañ leen tey ba ñu wër fanweer ak juróom sonn nañu ba ñu nga soyetage am na ñaar ñu dolleeku ci lim ko fi jot a ñàkk seen bakkan ba ñu amee suñu cas bu njëkk ci mbas mi ba jamono ji may wax ak yéen junni ak juróom juróom-ñett ak juróom-ñaari téeméer ñaar fukk ak juróom-ñetti doomi aadama ñoo fi jot ame lii di coronavirus bi si ñoom ñoo ñëwee fukki junni ak juróom-ñaar ak fanweer rek benn doomi aadama faj nañ leen si ba ñu wër ñetti téeméer ak juróom fukk jot nañ seen ñàkk seen bakkan jamono ji may wax ak yéen junni ak ñetti téeméer rek juróom-benn doomi aadama ñoo amee bile feebar di coronavirus bi tëdd ci lallu hôpital yi ñu leen siy traité. Zeyda Mariama Niass doomu Baye Niass bi dem na moom nag euh, samedi la génn àdduna fii si Dakar démb ci dibeer bi daal di nañuy euh, jëlee néewub doomu Cheikh al Islam bi ca hôpital militaire bu Wakam daal di koy yóbbu kaw Kaolack moom sax ni ki tey ci altine ji euh, bu ñu jullee 17h ba noppi maanaam juróomi waxtu si ngoon la ñu koy jébbal boromam foofee ca Medina Baye Niass ci wetu famiyam ba ñu ko génnewee nag ca hôpital ba lim gu takku ci taalibe yi ñëw nañu fa ngir dund ak Zeyda. Mariama moment yu mujj yi laata ñu koy ñaanal daal dinañuy fësal eh, waxtu yu mujj ya nga xamante ne ni Zeyda Mariama dund na ko si eh, ab vidéo bu ñu partagé ci réseaux sociaux yi ñu gis ko si rek mu tëdd ci lalam di déglu benn tarib alquran yàlla na ko yàlla yërëm te tas ñu ci ma comme ni ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi xalifu lew na ñaseen bi mere na lool njiitu réew mi Macky Sall ndax lu préfet bi tere xew-xewu diine yi ci noonee Cheikh réew mi si bu jéemee annulé ziara annuelle bu ñuy amal ci seen dëkk bu sell boobee ci atub 2021 bi tey xamal sax njiitu réew mi ne am na ay jinne yam moo mën a yebal palais rax si dolli ku jéem a annulé seen ziara boobee yaa ngi mettre sa dund en danger ba loolu weesoo xalif bi ne euh, amatul sax envie gisee que Macky Sall ba tax na mu ne dootul demander benn audience ngir gisee ak moom te it dootu ko accordel benn audience ba mu noppee si njiitu réew mi Cheikh Ahmed Tidiane Niass yokk tamit takk der yi ngir ñu te teg seen tank lu wër lew na ñeseen laata muy naan takk der bu fa tegaat tànkam dina la soppi mbaam tey xam le ni rek ziyaara bi dañu koy duñu ko mës a reporté tey bu daaw ba lu taxoon ñu reporté ko mbirum courtoisie rek la woon waaye at mi xalif bi nee na ci kaw suuf lu koy seen ziyaara bi te bu président bëggee xeex ak ay jinne na ko jéem seet te bu weesoo mbaam yu der ya mu fay yebal waral xalif bi nee na dina soppi tamit seen oto yi ay gunóor ba loolu weesoo xalif bi ne njiitu réew mi daa topp français yi si lu ñu bëgg bay sabab gratuitement ay noon laata muy yokk si ay kàddoom ni njiitu réew mi euh, féete na bu yàggul dara anniversaire am euh, te amoon na ay nit am tamit ay wëyëk yi feccoo euh, si noonee mu ne ana kon lu waral ñuy organiser ay anniversaire ba noppi di tere seen gàmmu yi di li nga xamante ni nee jàdduwul laata muy naak muy naan war a jox cër te rek yëg leen mu xamle ko moom xalifu Léona Niassène bi. xibaar bu bees daal dinay am si mbirum ñeenti complice Kocc Barma yu ñu teg loxo ba defeere leen ñaar fukki fan ak ñett si weeru décembre bi ñu nekk ngir collecte illicite de données personnelles si ñoom ñooñee bokk na si doom bu góoru benn ex colonelu armée bi moom moomee daa fësal ay photo yu ñaaw ñaareelu waajuram bu góor di ay photo ñuy maanaam photo ya nga xamante ne topp ko ca moom nag ca réewum États-Unis ba mu nekkoon la publier yooyu les photos mu yónnee rakkam bu góor bu nekk fii ci Dakar bu ñu sukkandikoo ci le soleil doomu colonel bi ak ñetti complice am yi dañoo orchestré benn plan ngir jaay photo ni yooyee Kocc Barma mi nga xamante ne ni moo leen dugal ci site porno wam bi nu ma leen ko diggee woon rek laa koy daal di defee damay àddu ci mbirum benn teenu gaz bi nga xamante ne moo takk jëppeeta bés yi ca Gajaga ak rek ingénieur ba ko doon exploité mu jëlee woon si ay gaañu gaañu yu métti lool ba ñu ko yóbbu hôpital ingénieur ba daa mujjee ñàkk bakkanam moom moomee diw yoo ci turo ba Michael du américain canadien la mu doon jéem a débranché ay fiilu groupe électrogène ba ngir limiter dégâts yi ba lii fekk ko ca Michael ca hôpital principal bu bu ñu ko hospitalisé woon da ñàkkee bakkanam moom nag mi ngi bàyyi ci ginnaawam juróomi doom ak benn soxnaam sa nga xamante ne ni sénégalaise la nekk cadre ca Petrosen frais hospitalisation am bi sax ñu ngi ko jëloon en charge ak assurance soxnaam société Marie Taw Niane PCA Petrosen moo intervenir ci boppam ca directeur hôpital principal bu Dakar dañoo prévoir woon it évacuer ko Maroc talaata buy ñëw ba tey ak ay frais soxnaam lu si doy wax nag moo di ubbi wuñu si benn enquête ngir situer responsabilité yi ak tamit évaluer risque yi euh, ci li nga xamante ne nii moo di pollution yi Euh, lu mu néew néew fanweer ak euh, juróom ñaari doomu aadama nga xam ne bokk na ci fukki soxna euh, ñetti bébé ak benn xale bu góor ñoo ñàkk seen a bakkan dibéer ci accident bu am ci Cameroun gannaaw ba fa benn bus mbëkkee benn camion bu doon ñëwee sens inverse bu ñu sukkandikoo ci police ba fukki doomu aadama ak juróom-ñeent tamit jëlee nañu ci ay gaañu gaañu ñu nekkoon ci bus bi ñoo ngi jóge ko woon Fumban nekkee ci bëj gànnaaru Cameroun ngir dem ci capitale capitale ba di Yaoundé gannaaw festivité Noël yi mu préciser ko moom euh, directeur ONG de prévention routière Sécurité su ma jógee Cameroun damay jubali ca Espagne kookee ngeen di gise ci photo bi mi ngi wuyoo si turu ba Mame na Wagne moom nag mooy ñaareelu sénégalais bu ñàkk bakkanam ci lakk-lakku Badalona bi ca foofee di Espagne gannaaw Baye Gueye lim gu ñàkk seen bakkan ci lakk-lakk boobee yëpp nag mu ngi yemook ñeent mu bokk si ñaari sénégalais di Baye Gueye ak maam ceex na Wagne ñaari gambien di Juldé Sall ak Fatimata Dramé ak tamit fukk ak juróom-ñett yu ci jëlee ay gaañu gaañu nga xam ne ñoom ñëpp génn nañu ci hôpitaux yi ba mu des ñaari sénégalais yu ñu hospitalisé ba jamono ji may wax ak yéen bu ñu sukkandikoo ci ab notu euh, organisation euh, bi di Horizon sans frontières. aywa ci roplaan bi di Air Sénégal lay addu ci waxtu bu ñuy amal ay opération manutention ci plateforme Roissy Charles de la benn conteneur mbëkk avion Air Sénégal HC 404 ci diggante euh, Paris ak Dakar ci noonu la ñu amalee ay opération inspection ak maintenance su appareil bi bu ñu sukkandikoo ci notu compagnie nationale bi dañu nekkoon ci vol boobee nag ñu ngi leen a jël en charge ci ab hôtel. taskatu xabaar bii di Doudou Diène daal dinay ñàkk bakkanam di ber ca Paris gannaaw ba mu tawatee woon ay atam tolloon si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar Doudou Diène nekkoon na journaliste ca RTS dirigé woon tamit rajo 7 FM bu groupe comme 7 moomoon actionnaire ya nekkoon yu Youssou Ndour Cheikh Tall Dioum ak Bara Tall Doudou Diène voix radiophonique bu neex lool la yoroon nga xam ne kenn laam-laameetu ko woon ba taxoon mu doon présenté saa su ne journal parler trésor rajo Sénégal yàggu lool muy xaritu Youssou Ndour Doudou nekkoon tamit nijaayu directeur commercial groupe Futurs Médias bi di Ibrahima Dieng bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen ak yeneen. oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da woo Amadou camera si numéro boobu ngay gis ci bar bi di plus 1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mën mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna. taskatu xibaar bii di Cheikh Yérim Seck daal dinay xamle ni état bu Sénégal gàllankoor na ay projet attentat yu bëri ci atub 2020 bi laata muy joxe benn exemple ni benn société pétrole financé na ay doomu aadama ngir ñu attaqué Sénégal waaye antuwul ndax état bu Sénégal daf ko gàllankoor mu xamle ko moom Cheikh Yérim Seck ngir xamle liggéey bu mucc ayib bu ñu def ci atub 2020 bi te kenn yëgul ngir gàllankoor ay projet d'attentat te rek kenn yëgu ko ci noonu Cheikh Yérim ne li ni mel war naa tax ba makki Sall mérité nekk homme de l'année malgré critiques yi ba tey ngeen di taataan xibaar yi ki Dakar Buzz ma xuuse ci làngu politique gi Déthié Fall daal dinay du mu lu ko Idrissa Seck Fall moom nag ab not la fësal di xam xamle ni gannaaw restitution wam bi ci post vice président réew mi gannaaw sorti wam bu mujj bi rek ca assemblée nationale ci ba ñuy amal passage di ministre de l' agriculture la yëg la ñu ko fal secrétaire général national chargé du développement industriel si noonee mu ne mi ngi jaajëfal président Idrissa Seck ba noppi noppi décliné waale poste boobee ba loolu weesoo mu ne mi ngi joxe dig daje bu yàggul dara ci engagement politique am bu mu oriente ci service peuple sénégalais bi. projet jëlee fii ville bu Dakar mi ngi woy di jur ay réaction ba jamono ji may wax ak yéen bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Vox Populi Serigne Alioune Moussa Samb imam ratib bu grande mosquée bu Dakar daal dinay fësal ne àndu si ba noppi di woo gouvernement bi ngir mu di delloo projet boobee fa mu ko jëlee woon. gannaaw ba mu xam leen état amul dara Dakar lépp lébu yee ko moom ba tax na mu ne bu ñu leen poussé ñu révolté te danañu janook bépp forme d'agression ba loolu weesoo la woo jiitu réew mi ak gouvernement wam bi ngir ñu comprendre ni Cap-Vert bi moomu ñu ko te duñu ko mës moom rax si dolli am na nañu papier yu leer nañ ci noonu mu ne jot na ñu jox leen cër te kenn mënula falsifier mbir yi laata muy naan lu am Algérie dina am si suñu réew mi maanaam si Sénégal. njiitu réew mi mag Macky Sall bett na internet yi ci weekend bi ak vidéo am bu ñu fësal mu ànd ak doomam bu jigéen bi ci otoom ñuy doxantu ci mbeddu ndakaaru yi sans escorte boole kook rek di waxtaan tax ñu nemmeeku si complicité bu rafet bu am si diggante njiitu réew mi Macky sàll ak doomam bu jigéen boobee seen doxantu boobee nag ci mbeddu ndakaaru yi jur na réaction yu bëri gannaaw ba si ku nekk waxee xalaatam. leneen Ndoye Bane daal dina yëkkati ay kàddu jëmale ko si ñuy soutenir Assane Diouf ngir ñu génnee ko ca kaso ga moom nag nee na dee ak kaso kenn du ko yéene kenn waaye ñuy def campagne ngir mu libre waroon nañoo def campagne ne ko bàyyil ñi ngay saaga ba mu nekkee di saaga nit ñi ba loolu weesoo Ndoye Bane ne moom si boppam jël na waajuram bu jigéen di koy yóbbu Makka ñu fekk ko aéroport ne ko waajaang lay saaga saaga yu gaaw te moom Bane nee na xamul Assane Diouf mësu koo gis mësu la def émission ba tudd ko jotewul it ak moom dara mu ko saaga fekk bu ànd ak waajuram bu jigéen ju muy yóbbu Makka eh, te tamit saaga na fi Youssou Ndour saaga fi première dame ak ñu bëri ña nga xamante ne nii jotewul ak ñoom dara ba loolu weesoo Ndoye Bane ne kon lu tee ba muy saaga nit ñi waxuñu ko mu bàyyi ñu muy saaga laata muy naan hypocrisie bi si réew mi la ñu war a bàyyi eh, te tooñ baaxul ndax bu dee rek nit ña nga xamante ne nii gën la ñoo la gën fopp lu waral nga leen di saaga nit ñi di ko cautionné mu xamle ko moom Papis Diaw daal dinañuy tuur ay rongoñ en direct ca émission jàkkaarloo gannaaw kàddu fu malaat yu leen touché lool ca ba muy leen di gërëm ak albumam bu Bouba Ndour produire laata muy naan bu weesoo loolu Bouba ngénte ak buy dëj yëpp Bouba moo fay jiitu laata tamit muy naan nit ku baax mooy buuba Ndour ndax depuis atum 2004 ñoo ngi ànd te bàyyiwul benn yoon ba loolu weesoo mu ne ba mu tàmbalee it lii di jàkkaarloo Papis la doon woo mu ko si jox ay ba ñu tuur fa ay rongoñ Noël 2020 bi bàyyi na ay souvenir si ña ko doon féete te ñu teg leen loxo ca kër Mbay Fall ak Petit Mbaaw alxames ñaar fukki fan ak ñeent si weeru décembre la sabar ya tàmbale si noonu ñenn ñi daal di si profito di amal mariage si noonu it gendarmerie zone franche industrielle ak ay éléments wu escadron de surveillance et d'intervention euh, bu gendarmerie nationale wàcc fa euh, ba ñu gisee nag auto gendarmerie la tëggkat ya daw ba fa seen i matériel ñu fekk fa feccikat yi ca euh, géew ga am ña sa daw ci noonu ñu teg ko ñeenti doomi aadama fukk ak juróom-ñeenti ndënd ak benn euh, table de mixage euh, si même zone boobee maanaam si benn gox boobee gendarme ZFI yi tas nañu fa it benn ndaje jàngub alxuraan si ëllëg sa yemoo ñaar fukki fan ak juróom si weeru décembre maanaam 25 décembre bi la ñenn ñi décidé feete Noël yi ci restaurant yeeg dibiteri aw sa yi major su kan nag moo leen yàkkal seen jeu boobee gannaaw ba mu fa wàccee ak ay élément ma euh, teg loxo fukki doomu aadama nga xam ne euh, bokk na ci juróomi gérant euh, fukk ak ñeent ya ñu teg loxo yëpp tey lañu leen di yóbbu parquet ngir la ñu jalgati arrêté autorité administrative bi ak tamit la ñu doon manifester ci voie publique bi te amuñu autorisation Pape Diouf leader de la génération consciente daal dinay organiser soirée ci 25 décembre bi maanaam ñaar fukki fan ak ci weeru décembre Radisson Blu di ab hôtel bu nekk fii ci Dakar donte sax ministre de l'intérieur tere na bépp rassemblement ak yenn manifestation yi ndax coronavirus bi eh, soirée boobee nag ñu ngi ko amalee ci teewaayu yenn autorité yu nekk ci réew mi ak célébrité eh, mu doon dîner de galaawu VIP yi entrée bi ñu ngi ko defoon cent mille francs ñu ngi fa doon baatre sax xaalis kii di Alassane mbay ñu naan ko griot des VIP bu ñu sukkandikoo ci vidéo yu ñu ci jot tëggat respecté wu ñu fa li nga xamante nga xam ne bokk na si takku masque yeeg distanciation physique bi eh, diine boobee nag mi ngi am ci waxtu bu artistes yi di joyte tamit arrêt manifestation culturelle yi ndax mbas mile di Covid 19 bi. mu den feete anniversaire am maanaam bésub juddoom eh, Penda gise cadeau bu yànju lool lañ ko si jox di cadeau oto eh, di oto bu taaru boobee ngeen di gis mu bég lool ci li ni mel tax rek mu tuur fa ay rongoñ moom Pendo ci kanam mu askan wa fa nekkoon. coow li bëri lool bés yi Aïda Samb daal dinay addu ci lu xewoon ca Las Vegas ak milliardaire bii di Mo Gates Aïda nag nee na dafa diiñ te am na ay mbir yu mu dul def gannaaw ba ñu doon euh, ŋàññee comportement wu ki nga xamante ne ni moo du Mo Gates mu doon sànni xaalis boobu leen doon may si suuf ngir tuutal ñenn ñi ci kanamam alxayri daal dinay jib ci benn candidaatu seen petit gàlle kookee nag du kenn kuddul Aïcha diaspora di moom moomee ngeen di gis ci image yi image bi sax ngeen di gis noonu rek ba tey ci écran bi équipe Dakar bés yëpp ñu ngi koy souhaiter heureux ménage moom ak borom këram ba tey ci euh, élément wu seen petit gàlle yi waaye bi la yoon ak ay Aïcha Koné moom nag mi ngi wane ni léegi gën naa mag ba tax mu yokk niveau am li nu mel nag mi ngi ko fësal ci photom yu mu mujjee jël daal di koy fësal euh, ci réseaux sociaux yi comme ni ngeen koy euh, gisee noonu Ndella Madior Diouf daal dina yëkkati ay euh, kaddu ci émission Kakatar ca télévision Futur Média di xam le ni du lu ko neex mu wax laata muy naan dañoo nekk ci benn société ba nga xamante ne ni dañuy toon nit ñi à chaque fois ba loolu weesoo nag la Ndella ne tuumal nañ ko wàllum lesbienne muy wax ak waajuram bu góor ne ko baaba dañu ma tuumaloon lesbienne ma ne leen man bëgguma jigéen ñi góor dëgg laa bëgg nee na si noonu papam dal dire wuute rek réaction ñu si bëri ba ñu dëggee kàddoom yooyee ba loolu expression ndeela ne mënoon na leen tontoo neneen waaye da leen de j'adore les vrais mecs ñëpp jàpp seen gémmiñ dëkk bi bëgg rakkaaju mu ne nag bu nekkee en couple moom moomee day sa yëg borom këram guddi gu yàlla sàkk laata muy naan boo seyul bés bu yàlla sàkk ak sa borom këram ndax da ngeen di dëkkee xeex wala naka ngeen fas yéenee def ba tey rek ca émission kakatar Ndoye Bane tamit yëkkati na fa ay kàddu jëmale ko ci aliment ne ko rek soo tollee nii nga toll sol lu ne ñàpp sa yaram foog nit ñi wax si noonee aliment ne ko yàlla dimbale na ma ba lu nit wax si man yëngalu ma waaye teewul Ndoye Bane noppi gannaaw ba mu ko waxaatee ni mënoo yor wang bu yem ni samedi bii di ñëw bu dellu ba noppi di sol la neex waaye aliment yi te daal dina koy tontuwaat xamal ko ne rek ne koo teg nga bët si sama wang bi te dama bëgg nga bàyyi ko ndax du pour yow photo yu beesu yaa aw sawo yi daal dinay attiré attention yi comme nu ngeen koy gisee noonu ak robe décolleté bu bleu bu yanj boobee euh, taaru lool te jàpp ko nga xamante ne ni moom la defee émission kakatar bu mujj bi euh, mu ravissante lool moom moomee di yaa awa Ouzin Keita ak liiru Diane daal di nañuy jàppante ca Sen TV Ouzin nag euh, daa nuyu liiru Diane comme ni mu nuyoo ñëpp ña fa nekkoon liiru daal di koy attaqué ne ko waxal sa wax te rek euh, bu ma tudd euh, ci noonu Ouzin ne ko xuloo taxumaa jóg laata mu koy naan fii si Sénégal seetlu naa ne ku fi bëgg bës rek foog nga tappaas Ouzin ba loolu weesee Ouzin Ouzin ne man du ma manquant di kàddu yu mer loo Lirou tax mu yëkkati baatam ne ko kan moo bëgg bës ci yow te naan ko du ma sa morom laata Ouzin di koy naan. mag bu ñàkk fayda nga ci page youtube moo coon balago Seck daal dinay déclaré guerre Youssou Ndour mu nekkoon nag woykat bi di sa Diop ak président wu observatoire de la musique et des arts di Mamadou Abdoulaye Guissé waajur Wally balago bi daal dinay dal Youssou Ndour mu mu tuumaan ni dafa bëgg a teg loxo moom ak clan wam culture sénégalaise bi gannaaw ñaari atub jàmm ba weesoo Papa ni Youssou moo placé ay jege ñaaleem ak i ay membre famille am ci ay poste stratégique gestion de la culture sénégalaise ba loolu weesoo coon sekk di sàkku sax ngir ñu audit SODAV bi nga xamante ne nii sooru Youssou Ndour bii di Ngoné Ndour moo ko géré laata muy naan sax dañoo war a former waat SODAV jox ko ñii di artistes yi Euh, Souleymane Jules Diop daal dinay xam ne ay kàddu yu doy a ci émission ba ñu ko dalaloon nag la xam leen ni waxal nañ ko fi sax ne moom ak Ndiaga Ndour ak Viviane Chidid reex nañu benn bés ànd dem soirée kii di Viviane nee na après mu jël Viviane yóbbu ko fanaan ak moom si noonu Souleymane Jules Diop ne loolu yow mosula am ndax moom moomee sax mosula dem soirée Viviane te it mosula toog ak Viviane ndax si dolli xamul sax Ndiaga Ndour si mu ne sénégalais yi mësuñu ko tamit dem soirée ba daal di ko fay fekk moom moomee di Souleymane jule Diop. tàggat yaram mu nekk buteur di béer ak Liverpool Sadio Mané daal dinay égalé limu biw Luis Suarez yi Sénégalais bi daal dinay jeexal tamit série 9 match sans but ca Anfield waaye lu gën a marqué attaquant sénégalais bi mooy ba ñu génne pelouse anglaise yi Sadio nag bëgg bu ko benn fan anglais bëgg am affection si moom si Twitter doon na lu ko touché lool benn xale bu góor bu pare sax ngir soppi nationalité ngir imiter kii di idolam boobu boobee di Mané benn internaute nag moo publier sur Twitter ne anglais boobee dafa bëgg saajo maane ba amu ci sago ba tax mu bëgg a jouer Liverpool ak équipe Sénégal rax ci dolli tantam da koo bett ak mayo gaynde yeeg dàll yi Sadio Mané nag daa reposté waat photo bi ak commentaire bu mu ko àndaleel ne ko bien joué petit. ci Sadio Mané laay des ak ba tey moom moomee moo ubbi score bi ngir Liverpool si ba ñuy janook West Bromwich Albion ah, ci noonee ah, la fóon baaraamam daal di koy joxoon ci asamaan si gannaaw ba mu copier ah, célébration li di supporteru Reds yi eh, bi nga xamante ne ni dafa amee trisomie 20 ans ci ab concert conversation vidéo numéro 10 su Liverpool bi eh, daa waxoon fans yi ngir ñëw proposer ko benn célébration lii détaillé ko geste boobee. ngir rendre hommage maamam bu góor si noonu Sadio Mané dig ko ni dina ko imiter ci prochaine réalisation wam moom moomee nag di nitu kaddu Mané dinay def ñaari yoon li ni mel gannaaw ba mu ko ko diggee woon. lamb laa koy tëjee ak mbirum mbër mi di ëmm seen ak tolof tolof yu ko ay jege ñaaleem di indi la benn mbër nag la ñu tuumaal ni dafa ëmbal mbindaanu ëmm seen ba jur fa xeex bu métti lool ca Petit Mbao ci diggante entourage yu ëmm seen ak agent boobuyee ex collaborateur u ëmm seen bii di baxaaw la ñu tuumaal ni moo ëmbal benn mbindaanu ëmm baxaaw nag dafa seeti ji woon foofee xaritam bii di Youssou Ndiaye di dëkkandoo ëmm seen si noonu ay jege ñaale tay shinga bi gis ne da leen di provoqué tax ñu attaqué ko ba ñu xeexee guddi gi xeex bu métti lool ba ñu yaakaar ne mbir yi jeex na la ñu xëyaat rek si xeex bi ba gendarme yi ñëw fa yóbbu ñëpp ñañu sa lim bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ëmm seen mi ngi leen doon jéem a atte waaye mënu ca dara waaye nag jot naa nangu benn benn paaka bu kenn si ñoom yoroon am sax kenn ku si jëlee ay gaañu gaañu si ay euh, jege ñaale ëmm seen euh, brigade territori euh, brigade territoriale bu gendarmerie bu zone franche industrielle ubbi na si enquête. am na ñu bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal na fi jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota rav Chevrolet ak yeneen ak yeneen. oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di plus 1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mën mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la nekkee